En il y a un autre policier qui a porté plainte parce que le policier actuellement sa vie est en danger parce que je suis taxaw publiquement wax ko mhm. donc je ma gis euh, mu en euh, euh, jurisprudence ba nga en train de na ci affaire diffamation mhm. entre un magistrat mhm. et un journaliste Wow, waaw léegi loolu dafa am sénégalais et ak sénégalais parce que tout le monde, si un peu ko tëj Ousmane di dox soxlaam te même chose lañ leen accusé ñu jàpp sama mbokk bi dëkk Fongolim bi tëj ci viol lañ ko jàppee peut-être tëj ci walla dañ ko accusé de viol tëj hmm. léegi ñu jógee ci euh, boobu noonu dugg ci diffamation ñaata nit la ñuy tëj ci diffamation wala ñaata télé ñaata organe de presse la ñuy arrêté ci diffamation ba tey le gars continue à faire ñaata nit lañ jàpp ci trouble à l'ordre public tout le temps il continue à faire ce qu'il veut que du ëpp loxo après. loxo.

sen taxaway def problème bi problème politique parce que day am conséquence ci stabilité réew mi ci dal bi nek ci réew mi da ci am conséquence ñu wara créer condition yu ñu àndeek mom ba wekki lolu dañ koy wekki kon da nga bëgg wax né Ousmane Sonko dafa bëgg ñu japp ko ci comme euh, euh politique euh, ma ngi ñëw di ma lay wax lu leer la ah. Ousmane Sonko wax ma loolu dama ne dafa bëgg fabriquer mom ah. liñ ko jappé pour que ñu àtte ko ci loolu pour que mu gën a jaxase ñu sori sphère viol bi li ñu ni dafa àgg si ndaw si ñu sori ko mais moom mooy def li ñu koy jàppee suñ ko jàppee ci leneen lu dul loolu politisation bi day mat moo tax état bi bu ko fekki foofu da koy topp dara la état bi fàttewul ci dara daf koy topp ci li nga xam ni moom lay bañ benn par benn parce que dafa am sénégalais buy xaar ñu àtte ko ak moom muy aji saar Adji Sarr def na li war a def damay wax nit ñi ne Adji Sarr buñ ko deful dara sax ci droit am la nekk su ko neexee man mi mu mësul gis mu porter ma plainte ndax viol tribunal dafa war a agir astamaak nag ku ni dem na fa donc Sénégal mënul gëmm procès ak Adji Sarr te moom loolu lay daw te won na depuis le début du processus depuis bi muy wax complot ba léegi procès lay daw donc ñu topp ko ci daw procès boobu

porté na plainte pour complot bi mu xamatul lu muy def du porté na plainte pour complot uh-huh. mais bi mu xamul lu muy def tamit justice bi muy wax def le recours pour que renvoi bi nga xam ne moo ko yóbbu chambre criminelle ñu tribunal arrêté que et tribunal mu ngi koy examiner le 14 prochain uh-huh. la ñuy wax ndax renvoi bi juge Maham def dañu koy weddi wala duñ ko weddi uh-huh. moom malgré tout ça mu jël beneen axe nag léegi mooy axu

pour que ñu am fu ñu déggee seen woote boobu déetuwaay pour te nañu waxtaan loolu munta nekk am à côté ñu taxaw comme man comme keneen ñu ni déedéet ñu kenn du leen déglu parce que à la yàlla ma yàlla bal ñi naan nañu waxtaan ou bien dañu juum ou bien ay naafeq lañu mais ñooñu sax foofu laay taxaw foofu pour wax la ne la ñoo ñu mën naa leen ooyee naafeq mën naa leen ooyee peut-être dañuy fay kër jàmbur alors que seen kër ngi tàkk. ndax euh, kenn rek laa de nom. Hmm. bu société civile. Mhm. parce que tout récemment amna ben Gambien bu fi euh, génnoon né problème ak ancien ancien président Gambie. Mhm. mu taxaw ko dem ci télé bi taxawu ko ainsi de suite mais que c'est une Gambienne bien que Gambie ak Sénégal ben Sénégal ben mhm. mais pourquoi nga taxaw Gambien bobu noonu te fekkee woo Fini, nga taxaw nga aussi li amul te fekkeewuloo donc nak man société civile bobu ñuy wax ça. Légue est-ce que man du une opposition déguisée ba nga xamantene ku fi nek ñu xex la même même tay ji bu yalla defoon Ousmane Sonko nek président de la République du Sénégal aussi société civile bobu non moy tourner bu gisul bopam ci affaire yi xex ko est-ce que nekul nak légui business civil société civile tant que Afrique muy ngi doon Afrique ni, ci ordre mondial bi du mësa gis bopam ci ku mënti yoré réew muy Ousmane Sonko di keneen pourquoi parce que effectivement ñom sen position sen fonds de commerce la projet bi ñu taxawé ci société civile bi du projet wu Sénégal ak société civile dédé projet wu ay impérialiste la ñi nga xam ni ci bitim réew dañu am seen gisin ci adina bi bugg ni àddina bi doxé déjà ku la ci gëna a nuru xaritu Sénégal mu ngi sét nan lay galgale Sénégal ba tout le temps muy ay am problème ak réew mu mu ci mënti doon mu ngi sét fan lay mëna tek tankam de temps en temps ba xajamal cere ji ñoom ñooy seen ay loxo moo tax tey doo fi gis benn société civile pour ne pas aller très loin bu la naan góor jigéen baaxul. Mhm. da ngay gis fii ñu ñuy xas naan wuy jongal jigéen affaire sauvage la alors que suñ ko bàyyee tey te bokkatul ci aada ñun am nañu terme yuñ ko expliquer ba du nekk sauvage. déet foofu foofu sax dama fay ñëwaat. Mhm. parce que euh, amoon bi ñuy préparer les élections locales. Mhm. boobu mu ñu fekk fële mais ñu ngi suivre parce que le monde est un village un village planétaire. Mhm. Euh, ñu dégg ci euh, à travers ànd sàmm jikko yi ànd sàmm jikko yi. ñuy wax ñu ne état du Sénégal bu gagné les élections locales day instaurer. góor jigéen ci Sénégal. Mhm. et discours boobu dama ko déggatul ñi fi ñi ko doon wax nekkatuñ fi wala ñi ko doon wax peut-être dañu am beneen projet wala lan moo tax waxatuñu lool te pour pourtant Obélix lañ daan taxaw di di def loolu moo tax sànq ma laaj la opposition déguisée la wala business civil la à la place. mais c'est parce que dama ci ñëw c'est que en fait ñu di wax loolu ñooñu ñoo ngemb ngóor jigéen gi parce que soo tëbee di.

effectivement c'est une fonds de commerce c'est seen business la. ñoom dañuy wut fepp fi nga xamni ni taal am na fa wala gis nañ fa li nga xamni ni mën nañ ci wax woné seen bop ñi nga xamni ni ñoo leen di jox xaalis mom néna ONG la yore xaw lu mu yoré dafa am ay bailleurs te bailleurs yoy dafa am lu nu bëgg dégg. dafa am nu nu bëgg gis nu ñu gisee dañu am noy andé ak ñom parce que seen soxla ngay dox wa société civile bi doxuñu soxla Sénégal seen soxla bop la ñuy dox.

li koy yore nag léegi dafay ay loi ak règlement ku ko jalgati dañu war a wax ak yow foofu nag ñoom la ñuy taxaw di wut ku ñu jekk pour wax ci yow mais du société civile buy dox normalement tous les jours ma wax ko war na nañu seetaat seen doxalin parce que société civile bu normal day ànd ak ñu yore réew mi di wax lu baax ci li ñuy def di leen tegtal di leen won di jàngat ak ñoom mais di leen critiquer mhm. société civile du jël opposition boot revendique surtout opposition bi ñu am ci Sénégal nga xamni opposition bi loolu mo mu gën a jaaxal ci suñu société civile opposition bu extraordinaire bi ñu am fi ci Sénégal nga xamni ay talkatu daay lañu bi Ousmane Sonko waxé gat sa gat sa dégg nga kenn ku génn fi di nga ma rey wala ma rey la dégg nga kenn alinti dégg nga mu wax do dégg kenn ci ñom wax wala suñu wax ci suufu table bi la ne wax mrmr kenn du dégg li ñu wax ñu daal di jàll duggaat ci leneen mais il suffit simplement man gis l'autre jour que ñu jàpp ben way jappat ben way bu def ndombe. Mhm. nit dof. nit dof. Mhm. ñu ni wéy pourquoi ñu koy jàpp liberté d'opinion liberté moy notion wu liberté yooyu ma lay wax ci la ñuy surfer pour jaxase mais l'État ne doit pas être faible par rapport à ça parce que rew mu nek ñiko yoré ñoko yoré so bayé touti rek bo deful nag dinañ delluwaat ci lu ñu mais mais euh, commissaire comme ñu ngi émission bi mu ngi waji a jeex parce que waa yi ñu ngi may TikTok fini mais légui euh, dañu bëggoon commissaire en tant que père de famille. Mhm. commissaire en tant que ancien commandant. Mhm. parce que da nga amoon ay éléments yooyu gérer te kuy géré ay éléments da ngay gérer say doom. Mhm. say sët. di leen di orienter. léegi tey ji cette jeunesse là nga xamante ne dafa réer man noonu laa leen ooyee dañoo réer léegi yow en tant que ancien FDS. père de famille léegi message de paix bi ngay lancé pour que ces jeunes là nga xam dañoo réer il n'est pas encore trop tard pour ñu dellusiwaat.

ay nit ñuy interviewé en Europe ci situation Afrique ñuy wax ne sénégalais leen li sénégalais yi am ci defar pas président bu rafet wala bu mën costume ci defar ak ci yaakaar ni seen réew dina dem kanam suñ ko amoon dañuy président bi nga tous les jours mu wane ni moom mii na réewam avancé ñeneen ñi ñu ngi koy gis c'est ça le problème man su d'accord wax loolu waxu ma ni Macky Sall moo fi gën. mais dama ni am na lu ñu mën a jàpp parce que yéen ñëpp da ngeen d' accord ni de 1960 à maintenant kenn defu fi lu toll ni lim fi def. waa loolu c' est le bilan matériel. waaw c' le bilan matériel. mën naa dem ci bilan moral bi. waaw man man man man fi may fi may wax mooy euh, doo dajeeg benn jeune ba wax moom li mu lay wax mooy le bilan matériel kenn mënu ko cee duut baaraam mais souvent ils disent le bilan immatériel. immatériel et alors que koo ci laajte. du le mën a argumenter le la mën wax exactement de quoi il s'agit mais ça c'est un combat mon cher parce que situation bi situation de manipulation la manipulation bin ñu di def moom ak immatérialité bi bilan bi parce que dañu nous seen xel yow da ngay waaxu ak ñoom ci réalité bi palpable bi touchable bi ngay waaxu téye si dem ci ñoom wax Andak agir pour nous gis yoon wi et lolo mu ngi am effet

ma expliqué que envoyer que sa ay vidéo ak yeneen vidéo ne on na tout à l'heure nee na ma bàyyi na naa ko jox sa numéro téléphone mu wax ak yow donc ça veut dire que ñun li ñuy def mooy solution bi du toog ay jaay moralisateur di expliquer di wax non dañuy agir nangu sacrifier dara ñun dañu d'accord ni kuni, ni mi jaral jot ci réew mi jaral na ma sama ma soo ko warul jot dan naan ñun tamit nga ñàkk jot réew mi jaral nañu suñu bakkan ñu ànd ak yow ci terrain bi je crois que posture bu concrète boobu di wax nag ñu jar a waxal du xale yi intellectuels yi la ñuy waxal ñu jóg dokk ci wax ji parce que dafa am ñu manqué ci géew gi fonctionnaire yu mag yi nga xam ni post rek la ñuy wut dañu nekkul ci géew gi dañoo laqatu di xaar président Macky Sall wala keneen fal leen mais bokkuñu ci wax ji bokkuñu ci ceew mi te réew mi dafa laaj ñu alimenter soow bi de manière

Qu'est-ce que len d'ailleurs sax Sénégal la paix et la stabilité au Sénégal ces genre d'organisation là vraiment l'État aussi de len nous recevoir waxtan ak nous bu laaj mu opposition recevoir opposition ça daf leen wër recevoir jël sen xam-xam ak sen xalaat parce que mouvement nonou euh, je fais pas de publicité mais xamna ci dara té ñi fa nek leer na mané taxaw nañu pour defar Sénégal kan ken nek fa di kéemaane ay kilifa rek fa nek donc nag foofu commissaire ñu bëggoon nga waxtaan tuuti peut-être dañoo xamul lan moy xéxal Sénégal muy état muy opposition mais ñaari côté pour leen wër jël. waaw mais c'est très important mais